boo lan nga jàpp ne Sénégal war nañ ko fi coppi euh, ci wàllu système judici politico judiciaire bi bu ñu bëggee gën a ñoŋal suñu démocratie. déjà président bi waratul euh, présider conseil supérieur de la magistrature. Mm-hmm. parce que soo xoolee suñu doole président yi du dara lu dul justice bi te bon justice bi nag suñ koy signaler du ñu généraliser. parce que c'est pas tous les magistrats ñoom ñoo nekk en complicité avec le le régime il faut le dire donc voilà mais li ma xam ba xam mooy il faut qu'on réfléchisse à comment on élit les juges plutôt qu'à les nommer maanaam mooy ñu xool nu ñu euh, fale juges yi ñun suñu réflexion lenn la am benn quota de député bi représenté population bi ak tamit benn quota de magistrat bi nga xam ne maanaam dañuy def benn genre collège pour ñu mën a statuer les postes des magistrats que ça soit les juges ou autres loolu moo nekk suñu suñu programme incha allah. d'accord mais beneen réforme de la de la de la justice à part euh, de de des des des magistrats là ban réforme réforme boobu rek nga xalaat ni moom la ñu war a apporter. mooy li ma la wax c'est-à-dire doole président si justice kese la nekk. doole président nekkul ci gouvernement nekkul ci feneen ci justice kese la nekk justice bi tant que président mi ngi koy diriger day am toujours ce qu'on appelle maanaam deux états maanaam l'état principal maanaam mooy li nga xam ne c'est le président et son gouvernement et l'état parallèle l'état parallèle mooy président bi su bëggee faagagal benn opposant day joxe ay pouvoir ñenn ñoo xam ne il sont même pas dans le gouvernement ñi def lu leen neex di tëj ñu leen neex di toroxal ñu leen neex te deux états yooyu noonu àndul pour diriger dëkk parce que dëkk daa am lu ñuy wax maanaam dictature moo koy doxal mais ban dictature moo koy doxal parce que dictature c'est pas un mot méchant y a ce qu'on la dictature personnelle mooy li am Sénégal président boo xam ne dafa jël lépp plié ko ci tànkam ak la dictature éclairée maanaam mooy loo xam ne dañ ciy déggoo pour mu jëriñ l'ensemble des Sénégalais ñu ciy tënku te ñaar yooyu noonu mënuñu bokk il faut ñu séparons benn mooy taxaw malheureusement depuis 63 ans Sénégal benn kese moo fi taxaw mooy la dictature personnel wax ji mooy système bi dafa bon bon boo xamante ne plus day avancer plus président bu fi nekk moom day toog di gën a am pouvoir. est-ce que dans une dictature éclairée est-ce qu'on n'a pas un despote éclairé. non non c'est pas le cas xam nga dictature éclairée mooy lenn comme par exemple mbedd bi kenn amul droit tuur ci ñëpp dañu ciy nangu soo ko defee ñu teg la dàmp loolu kese la du leneen c'est pas compliqué loolu rek la c'est pas dañuy ñëw di ci non du loolu dañuy déggoo ci loo xam ne ñëpp a koy def